depuis novembre 2019 petit train de banlieue arrêté na exploitation te ñun si jamono si dañ ko tuddee woon nu mu exploitation arrêt temporaire la woon mais boobu ba léegi train yi dawuñu waaye nag terewul ñun ba état jëlee dogal xam ni léegi moom instruction yi mu jot ci UEMOA na UEMOA dafa ni leen léegi bëggatul ki exploitation yor patrimoine bi maanaam yor gaar yi raay beeg ak installation yi léegi ci la ñu créé woon société nationale bii ñu tuddee ko CFS bii ñu tuddee ko le grands trains du Sénégal kon CFS ku ko dégg it xamal ni moom patrimoine bi la yor. kon bu ñu ne exploitation ñun lañ jàpp ni mission boobu ñun la revenir mooy ñu jël nit ñi yóbbu leen à l'intérieur du pays ak it lu ñu naan trafic national de marchandises état bi ñun la ko sant. kon ngeen xamal ne tey jii ñun suñu toogaay bi lu ko waraloon kon boobu dañoo duggaat changer de mission waaye nag ñun lu ñu seetlu boobu ba def suñu liggéey ni mu waree am na ci loo bëgg dafa xaw a lu bëri dafa xaw a desani ndax it gis nañ ni état la mu war def dëgg-dëgg pour jox ñu suñu mission ñu mën ko remplir dafa am xaw a jaxasoo suñu diggante ak CRS waaye nag du tere ñun jote nañu wane suñu bopp ren ndaxit it ba ñu toogee quatre ans liggéey ñu ren yàlla def na ba ñu gisee ni tey gi mbirum accident yi ak mbirum embouteillage soo na la nit ñi ci màggal gi gàmmu gi dañoo woo pour ñu génn suñuy saxaar liggéey ndax bañ ko génnee aussi wax dëgg yàlla def nañ ci loo xam lu mucc ay ayib la fexe nañu ba yóbbu les pèlerins si jàmm yóbbu leen màggal tuubaa yóbbu leen gàmmu Tivaouane te yooyu boo ko seetloo aussi avec le confort tey ji bu ngeen xoolee suñu terrain yi les voitures sont climatisées et te jàll def na ba keroog bu ñu ko defee bépp client bu wàcc muy Touba muy Tivaouane sant nga ñu gërëm ñu kon nag loolu jot nañ ko fee def ñun jàpp nañ ni loolu saxaar yi kenn warul am xalaat tey ëllëg da nga koy ndax mënu ma nangu ku dépensé ci voie ferrée dépensé ci xaalis bu bëri ba réhabilité ko def réhabilité ay gaar nga ni tronçon du bëgg a tëjaat jëmale déwén kon boobaa raay day waat jàpp nañu état wu nga koy def it da ko def pour mën a train yi mën a dawaat waaye ñun lu ñu seetlu en tant que représentant du personnel dafa mel ni dañoo bëgg a waat te loolu ñun duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. ñu woote pour alerter opinion bi xam ne ñu ngi bëgg a gaarewaat waaye xam leen bi paa dina wuteeg bu njëkk. bi pas lu mu leen jaral ñun dinañu ko jaral pour que train yi mën a daw ndax il va de notre survie jàpp nañ ni état ki sàggante gi muy sàggante GTS à chaque fois da koo wane ci bi mu génnee fi bi mu fi jëlee suñu DG bi fi nekkoon ndax gis nañ ñu bëri conseil bi euh, euh, relevé DG conseil boobu mooy nommé DG mais pourquoi nga nangu entreprise boo xam ne presque un mois mi ngi nii amul DG moo tax ñu koy wax monsieur le président dafa jot nga wutal ñu un remplaçant indi un DG ñu ànd liggéey di ko interpellé aussi ndax it bu ñu sañoon la ñun indil koo xam ni moom góor la wala jigéen moom moo xam waaye dañ nekk koo xam ni maîtriser na chemin de fer loolu di ñaan aussi kim ñuy indil bu ñëwee na xalaat entreprise bi lu ko jëmale kanam xalaat aussi liggéeykat yi mu fi fekk it xam ni tey am nañ seen i yeex ak ki yeleef bu jàppaleen ak seen i teranga tey jii le 31 octobre amuñu benn visibilité ci salaire yi ndax it autorités nekk ci kaw nëbbuñu ma situation financière bi d'ailleurs même le DG sortant transmettre na ma situation financière bi am pour one ma ne la def depuis le 12 octobre il a envoyé une correspondance au ministre Mansour Faye Niko la ma waroon a euh, trois mois di ñew yaani ma jël ko nga organiser magal ak Touba man inshallah allahu rabbi lépp lu war ci bobu dina la ko jox comme ça mu daal di koy compléter. mu fay gis nañ depuis le 12 ba légui waxul dara ci bobu correspondance kon tay di jappulé nit salaire dara leeru il doit répondre à cette correspondance là sunu salaire moo ko war a mën a fay assuré fii ba 31 décembre moom moo ko dépensé loo feneen kon ëllëg yow dafa war a mën a assuré salaire yi ma leen di ñaan nag loolu dafa laaj ab taxawaay kon bu leen sori mukk syndicat bi day leen ñu déglu xam ne bu jaree toogaanu dinañ ko toogaanu ba keroog ñu fañeen sinon dinañ xaawi suñu sutura cessation de paiement nag xaw ma kan la ñu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg parce que xam nañ situation bi moom Mansour bu may xam ne mënu woon organiser màggal waroon na mën a bañ a laal suñu xaalis waaye comme moo ko laal nag incha dina ko joxe wala lu mu dégg ñun